salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk seen xarala Academy duñ topp suñ formation Python Django tey suñ vidéo lu dañoo bëgg a ñëw si beneen concept bu am am solo mu nekk modifier naka lañu ñu modifier benn contact parce que mën nga juum si nom bi wala nga juum si téléphone bi wala nga juum si email bi léegi nga bëgg modifier boo ko bëggee modifier nooy def ok léegi premièrement dañuy ñëw si page contact détail bi ci suuf par exemple fii si suuf UL bi ñu ajouté fi ñaari bouton léegi damay dem benn div jox ko margin top 2 waaw margin top 2 léegi fii laay créer sama ñaari bouton yi léegi det hmm, btn euh, primary voilà léegi bouton bu njëkk bi moom mooy nekk update bi URL to edit contact ok bon une URL mais dinañ def après euh, modifier c'est quoi le problème euh, ça passe pas ok les bi moi modifier bi comme qui existe existé gul commenter ni ok ndax ñu xool ndax ñëw na wala ñëwul voilà bouton bi ñëw na modifier bi ñëw na ok léegi damay bàyyi nii pour mu afficher léegi mu indil ñu erreur bi après ñu xool luñ gérer erreur bi ok c'est bon erreur baax na ni donc damay créer fii view bi edit contact jox request request léegi bu nekkee modifié presque mook euh, kii ñooy am mais moo tax modifier da ngay soxla l'id wala ñu jox id fii id léegi ñu def ñu daal di def return pour éviter erreur bi ni render request léegi jox ko template bu mu war a dem contacts edit contact.html voilà le edit contact.html Le def nañ ki fonction bi léegi ñu ñëw ci url fii voilà léegi dañuy xol bi ni détail bi ñu copier ko pour gagner un peu du temps ok Le ñu ñu importer ci kaw edit edit contact les contacts mon nekk les filles fii def edit ok les filles au lieu de contact détail damay def edit contact fi tamit au lieu de détail damay def edit contact les ñu xol ndax pour jox ID bi da ngay par exemple contact ID ok c'est bon. léegi ñu xool lu muy joxe voilà comme ni ngeen ko gisee léegi ci erreur bi dem na ok par exemple tey boo defee nii daf la naan kii bi existé wul formulaire bi léegi ñu créer page bi nii ok léegi page bi moom nouveau contact presque ñoo niroo donc damay copier lii rek def ko foofu noonu pour gagner du temps moo nekk nii voilà. léegi ma wan leen ngeen xool voilà gis ngeen ñëw na mais bu ñuy édité bëgg gis nom bi gis prénom gis téléphone pour xam nuñ koy modifié wi ok yaakaar naa comprendre ngeen loolu bu baax léegi pour nga indi fii nom bi ak prénom bi voilà foog nga demaat ci view bi fii nii nga récupérer données yooyu léegi pour ñu gagner du temps un peu damay damay dem si méthode bi nga xamante ni moom mooy créer contact mo copier données voilà j'ai fini comme méthode bini de copier données fi bon après 9,1 expliquer étape par étape sinon chaque jour de répéter répéter répéter voilà. d'abord avant ñuy def li ñuy posté récupérer benn contact ba pare léegi pour récupérer benn contact bi nooy def parce que contact bi nga war a modifier da ko war a xam comme niñ defoon si modifier get object or 44 ngay def fi nga jox contact après nga ni ko id égal à id mooy id mi passé ci argument bi léegi variable bii nii moom la ñuy passé ci contexte bi moom lañ koy joxe fii nii. parce que benn contact rek lañ soxla ñu def nii contact ok c'est bon léegi am na beneen affaire par exemple bu nekkee ni pare nga fii xam nga fii dañoo def créer mais bëgguñ créer voilà léegi damay dindi créer bi dindi variable bi jaruñu ki beneen variable léegi dañuy filtrer récupérer benn contact bi pare voilà léegi benn contact bi lañ soxla nan lañuy def dañuy def par exemple PK moy primary key wala ID contact moy key primaire bi récupérer méthode point update voilà je pense comprendre ngeen bax dañuy filtrer ñu daan jox contact bon xaar mo wal leen bu gëna bu set code bu gëna set <laughs> déclarer variable contact euh, hmm, bon contact to update voilà pour baña jawale ak benen ya kan? bële egal leg mo defé ni bi mom lay def ni jox ko fi voilà leg def if request that method egal to post mo récupère données yi bu né auteur mom jaru modifier dama koy dindi parce que moy auteur bi créé won jarul modifier mën na dindi fi, ok léegi dina auteur bi Les bu lépp par exemple buñ modifier contact par lan lañ bëgg dañ ko bëgg rediriger vers la page des contacts redirect contacts ok bon am na erreur bu may signaler xawma lan la nag indentation am na erreur d'indentation, indentation xaaral ma jéem a pousse bi baax parce que xaw erreur d'indentation fa la wara a nekk waaw waaw à chaque fois nag bu nekkee da nga copier coller code moom souvent da indi if bii nii la xamul fu mu war a fu mu bokk je pense c'est compliqué ah est-ce que xam nga retourne ma def nii bii ba voilà c'est bon. léegi baax na léegi def nañ ko contact point visit point filter pk égal contact point id léegi lu ñu bëgg mooy fii nii contact bi affiché si voilà léegi pour def loolu bu ñëwee page bi nii euh, si ci input bi dañuy def dañuy yokk benn attribut euh, bu ñu tuddee value ok value égal léegi contact bi ñu récupéré woon moom la ñuy def fii nii contact point non waaw yaakaar naa noonu lañ ko tuddee ci base donnée bi ñu xool ba xam parce que man fàtte fàtte fàttali ko mën a laa tuddee voilà contact value égal contact voilà léegi noo mi ngi nii léegi bii tamit mooy copier waat changer ko prénom fii au lieu de nom def prénom fii mu nekk téléphone contact point

boo mënee modifier par exemple mooy xadi par exemple kh1 arobase mi point com nga enregistré léegi boo defaatee nii ñu xool ndax modifier bi dem na wala dem wala dem na mu ngi ni kh1 bi ñëw mbokk yi doon seen Xarala Academy yaakaar ni jariñ ngeen si vidéo bu baax comprendre ngeen nu ñuy modifier benn contact si vidéo bii di ñëw dinaa leen wan naka lañuy ñuy supprimer benn contact merci